jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci euh, Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam mbokk yi ñuy topp ci biir réew mi ak ñi ñuy topp ci bitim réew ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam tey nag ñu ngi toog ak benn sampion euh, bu mag ñu koy wax Serigne Ndiaye alias Coriace mbër gère naa la bu baax a baax mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax waajur bu baax a baax a baax suma famille di nuyu waa Medina gi mu juddoo yore fu màggee fi di nuyu waa Igri Fass suma baab Abass Ndoye suma baab Tawa Gueye suma entraîneur suma baab muy Père Amadou Kar Diop di nuyu waa Igri Fass yëpp xam di nuyu suma entraîneur yi may entraîné entraîneur personnel yi ko su mel ni Kanté Badian Wakaam di waa Wakaam yëpp xam di nuyu Maxi Bodi Colobane di ko ñaanal jàmm salaam xam suma ni Zal Bada Ousseynou xam nga Mame Samba xam nga Mor Lamine Obala xam nga di nuyu Kamalo si Baye Abdou Ba di ko ziar. Mhm. ziar ñëpp daal. Mhm. ay ci Serigne Ndiaye jógee drapeau du chef de mel ni dafay stand by nu mu demee woon noonu bi nga jógee Diourbel ñu toog benn temps bu yàgg gisuñu la. waaw du dara dañu doon liggéeyal rek parce que moom wax dëgg yàlla bu ma mos a laa yore. Mhm. mu toog yokkal lii yokkal lii ma yokk daf lañ wax. vraiment dama nekkoon ci liggéey bi loolu kese mais bi ngay jógee drapeau chef de l'état jëlee nga fa blessure ba nga xamante ne bi ñu bëri yaakaar naan moo la moo la moo la tax moo la teewoon a ñëwaat ci làmb yi. waaw loolu blessure bokk na si nag. wax dëgg yàlla blessure sa baaram yi quoi. waaw bokk na si wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw mais daal sant yàlla bu baax. Mm-hmm. dinañ leen xam sama médecin yi ñu mën a euh, toppatoo bu mm-hmm. xam nga ku si mel ni le grand alban. waaye Etio plus yëpp maa ngi sant bu baax di gërëm Etio plus yëpp. xam nga mu ngi nekk si dëkk bi. xam nga si grand Sonatel bi. di nuyu nag ñoom mooy

père Tafa Gueye lim leen teg père kat yi lim leen teg moo leen topp ba bi ngeen jógee drapeau chef de l' état performance bi mën a continuer. waaw sant yàlla dañ def ay coono nag di nuyu suma équipe bu baax waa équipe Dakar bi yëpp. Mhm. ku si mel ni tey suma 100 kilos Modou Pouy. 86 mhm. kilos Tony Junior. Mhm. xam nga Babou Kaling Mbaye Diop. ak gars yi nekkoon regroupement yëpp. ku si mel ni Lam Toro. seen kumba xam nga Zal xam nga Xeeru. xam nga xam nga dàq jàpp xam nga Suka. di ziar ñëpp Boursine numéro 2. booy ñoo defoon ak ñun regroupement en fait deux jours. ñu mhm. suñu coach yu baax ñu ngi coach Paul Grand Malick. Mhm. xam nga euh, Ahmed. di ñëpp daal vraiment liggéey bi jaar na méttoon na trop nag ci weeru koor gi. Mhm. xam nga mais yàlla dañoo si jàmm ba ñu doon seetlu saa jël ko daal di ñaan yàlla bu baax la amul lenn looy regretter ci dem bi nga dem drapeau du chef de l' état. non non non parce que sama kilifa yebal. tey bu ñu drapeau chef de tey su mboobu tabac yooyu nekk fa après kër Diop nekk fa. donc mu ñëw fa foofu amoo dara ma fay su su météo ba métti sax. wallaahi dama koy gérer mais sant yàlla moom dañ am xam nga lépp jaar nañu macha woon si état bu baax. doon entraîné amuñu benn problème daal alhamdulilah rabbil alamin nga jóge fa Assane Mbaye benn benn benn benn moment mais nga dellu si waat ñu gis sa première sortie Ibamar sa première sortie Ibamar macha allah nga ñëw jël ko. est génn ma Joal. ah Joal très bien Joal nga njëkk a génn. ca ca ca su ma juumul oto lan tegoon foofu. 3 euh, millions nag ak fas yi. ok nag ak fas yi. Mm-hmm. Mm-hmm. sa première sortie Joal. waaw mm-hmm. wàcc Ibamar. mais mais ana waa ji xaftaan bu bu bi ngay àndal. <laughs> <laughs> Kabandoski. <laughs> fi mujj jàmm Kabandoski. waaw Kabandoski la tudd dëgg-dëgg. waaw ah. surnom la wala noonu la tudd. non moo turam dëgg Kabandoski ñing. Kabandoski ñing. man su ma ko gisee mu jiitu ak Senghor yi rek ma ne Serigne Ndiaye ngi ci yoon bi. waaw alhamdulilah wa amiin. Hmm. di ko ziar bu baax tamit. Hmm. waaw mu fayam daal di ko ñaanal jàmm ak salaam. Hmm. yàlla bàyyi sa dëgganteeg moom. nga xamante moom moom mënut ma si wax daal mu yàgg fii. parce que mbokk xam nañ ñi ma àndal xam nañ. amaa tëddee sax xam nañ tamit dina woon lu ñu mel. ma cofeel ba dox sama diggante moom. Mm-hmm. xam nga kooku amul fayam. Mm-hmm. dama ñaaw mu yàgg fi lool. te ànd ba bi ñu am ci man ak yaakaar bi nga ci yëpp. Mm-hmm. dara. ak seen na Mouhamed. sa dernière sorti la ñuy ñëw fii fii ci euh, Iba Mar Diop ñu gis euh, champion yu bëri woon fa lool luur yu bëri woon fa lool macha allah yàlla dogal nga jël li nga xamante ne bii moom mooy mise bi euh, bi nga bëree ba pare ba jël mise bi lan nga yëg. waaw mais sant yàlla comme d'habitude a ah, sant yàlla rek. Mm-hmm. boobu nekk say nawle. Mm-hmm. mbër ku si nekk te li nga tax a jug mooy ministre bi nga tax a jug. mais mm-hmm. am ay waajur am yaay am ñooy entraîné bëggee. xam nga mais bu la nga jóg da ngay sant yàlla bu baax. tey masawu li nga bëgg lañ bëgg. fi nga déparé fa ñu déparé. xam nga fi nga jugee fa lañ jugee. donc bu yàlla suturaale nga jóg dafa sant yàlla daal. yow ak ak yaag Doudou Sané mu mel ni bi bi ñu tiiree ba ne yéen ñaar ay daje stade bi yëpp jóg taxaw parce que yéen ñaar seen combat day metti tout le temps yaag Doudou waaw ah, mais loolu dara di ko nuyu bu baax champion la la bu baax la mhm. lamb la sport la mhm. Mhm. stade bi yëngu woon moom stade bi stade dara parce ay ñun maam ñun ay ndaw lañ lañ xam nga mais li ñaaw ñaawul mooy violence bi am ci lamb ji te dafa te mbër di bëre xam nga ñu koy sànni ay xeer. di ko sànni ay ndox waaw keroog gis nañ xeer yi di naaw quoi. waaw man dóor ma ñeenti xaw ma quatre xeer am ne mooy loolu. Hmm? barke Sëñ Tuubaa te naa sur quoi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk benn ñuy défendre. Hmm. mooy dimbali suñu ay waajur moo ñu tax a jóg. Hmm. nga bu ñu neexoon mën nañu defee ji leneen mën nañu ëpp suñu visa léegi dem États-Unis toog fa mais làmb lañu yàlla séddee làmb lañu bëgg nga te bu nekkee si làmb duñ dimbali suñu waajur mais loolu foog gars si bàyyi xel xam ne sport cinq minutes moo ñu boole trois minutes deux minutes mhm. ku yàlla may ndam ñu xam ne kii la yàlla may ndam wërsëgam moo si nekk mhm. ñu accordante sekk jàmm sekk salaam teew bu ñu waree bëri ba mu siblee noonu la ñu rayante mhm. xam nga après bu jeexee jeex na quoi man loolu laay dund niñ gars yi dundaloo si jàmm salaam moo gën xam nga di remercier ñi fi nekkoon ñëpp di leen baalu wax bu baax a baax mais loolu tamit day jar parfois ngeen di sensibiliser seen supporters yi mm. surtout ñi bëgg Serigne Ndiaye ñi bëgg Doudou Sané ñi bëgg booy fay ñi bëgg Mamadi Ndiaye ñi bëgg Franc mm. ku ci nekk di sensibiliser say supporters di leen xamal ni sport mm. foo la agréé il faut am ku gagné mais tamit il faut am ko perte waa loolu dëgg la bu ñu bàyyi xel la maintenant la dëkk te maintenant stade bi boo xoolee saa yu ma nee day fees jàll parce que sama gars yi supporter dañuy dugg biir stade mm-hmm. mosu moom final fi Ibou Mar bu yaraax mm-hmm. ñu baaxee loolu mm-hmm. mais comportement mbër dafa am solo ci dans situation yu mel noonu parce que tey euh, sama ma ñu ma àndal tey ku ci coow bu ma xoolee si bët doo coow Mm-hmm. comprendre nga mais ñun mbëri ñoo war a xool suñu comportement envers suñu ay supporters envers suñu àndandoo mm-hmm. xam nga lu làmb ji xumb xumb xumb ñu ànd ak cent franc ànd ak dal xam ne carrément kat ñu mbër bu ñu yëngalee rek wala ñu di problème rek après du mujj fu neex mm-hmm. te tey yaakaar naa làmb fu mu toll nii soxlawul lenn lu dul bëri ci fair play combat yi nekk yow mooy gañ xam nga moo gën nga yor benn comportement boo xamante ne après suba ak gannaaw suba supporters yi ñu làmb gi na loolu dafa ñaaw quoi. ci ni ko teg alalam ay amateur jóge fu ne. Mm-hmm. ñëw pour ay combats yu neex ay comportement mën bëgg a yàq. surtout surtout yàqal ñu ñëpp. naa su quoi dañu xool suñu comportement am ñoo bokk ndey. ñoo bokk bàyyi cinq mille moo ñu boole trois mille après ku nekk dañ ko soxla surtout commission yi jeexul xaajul. Mm-hmm. chaque at ñaata mboq am. kenn mënu ko compter. man mi mënoo bëri boppam yëpp mu nekk. kenn kenn waxi noppi da ngay bëri li nga mën a bëri bàyyi keneen bëri lu a bëri. loolu la. ñu xoolal comportement yi mu nice quoi. am na amul solo. ban message ngay ne bii parfois dañuy am yenn comportement yi nga xam ne bokkul ci làmb. waaw mooy li la rek. waaw hmm. ci mbëri lay commencé. voilà mu nang parce que amateur ba duyee këram ñëw yàq tax ko jóg déedéet li ko tax jóg moo toog seen ay combat yi neex combat yi àgg ci jàmm am na comportement am dina moom mu def loolu loo xam ne ni waru ko mhm. dem këram toog rëccu mhm. seen war na mun mhm. xam nga nañ nañ nañ xool suñu comportement daal affaire mu gën a rafet mu gën a naaj ñu xam ne carrément ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te affaire yi ñëpp ko bokk tey amateur bu ñëw tey dafa dagg biyam ñëw toog tribune toog noonu xaama xool Serigne Ndiaye la la indi tey mhm. xaama xool diw la la indi tey da nga ko mën wala xam si làmb neex ta wala amateur am problème fële ñëw dimanche jot mhm. mu ne xam ñëw fii xa sama xol si làmb ji effectivement pour génne stress bi nekk ci moom ñun ñun mbëri ñun athlètes yi mhm. ñun la ñuy seeraan si yombul tey boo daggoon billet bi tey kenn du fa dugg mais bu Serigne Ndiaye daggoo billet tey xëy na tey ñaar la ñu dugg seeraan Serigne Ndiaye te loolu yombul boo suñu borom boole si nit ñooñu day xam yaay kan nga xam ni ngay doxalee xam sa comportement xam ne même bu dee benn nit mu lay baax xel nga xam ne doxee balaa ma kenn nag waxuma kenn dara mais damay wax pour ñu xool suñu comportement parce que li xew dimanche passé après affaire yi bu ko bàyyee mun na gën a aggrave ba jur leneen te bu ñu bàyyi naa la dëkk ñu bàyyi xel bu baax tamit damay damay giifa sama supporter damay xuloo ñoom si stade bi lu gars yi dul yëg parce que des fois ñu bëgg def ko ne ma di leen di leen defal quoi di leen defal lii bu leen def nii ak nii ak nii mais am na comportement mun a am man tey mun a demee neneen te loolu dara àdduna jaru ko xam nga ma lamb lu ma ko dugg ci discipline ci yar ci teggin bëgg a dimbali sama waajur bëgg a dimbali ak képp ku si xaj bak Seydina Mohamed mm-hmm. ma wax dañ nag maa baal wax baax a baax ñëpp mm-hmm. mais li ma wax ne bu ma leen lu rek lamb bi jëm kanam mm-hmm. si li ñuy yëngu ñu jox ñu cër xam ne ñun ay doomu aadama lañ ay nit lañ liggéey moo ñu tax a jóg ca mi ngi noonu mu nekk message bu am solo ba nga xamante ne bi yaakaar naa képp koy uh, yëngu ci làmb wala képp koy takk ngemb war nga ko war nga koo bàyyi xel uh, nga bëre ak Doudou ba pare nga gañ ko par uh, par point su ma juumul par point nga ko gañ mais avant ngeen di bëre gis naa Franc ñëw di di di di jaaju mel ni ku yàkkamte woon naan la gaawal ñëw mel ni daf la xiifoon. <laughs> non loolu dara di ko nuyu baax di ko char moom champion la mbër la. Ah. la dara ay neexal la rek. waaw ah. ah, ci bi. fa di rafetlu comportement bu baax baax c'est un grand sportif. naam Franc waaw. Mm-hmm. di ko wax. cinq moo ñu boole lu ndaw la cinq mille dix mille moo ñu boole. Mm-hmm. après da mm-hmm. bu baax xam ne làmbal loolu dara xumbal li animé jëkkati fii loolu dafa neex quoi day bu mag bu ko neexoon mu ne du ma tax ngemb dugg duggaat ci mbapat bi surtout surtout surtout. mais day wan day joxe un bon exemple. ne carrément kat champion wala leneen dellu ñoddi. làmb mooy sa gagne-pain mooy sa liggéey. toog compétiroo pertement la mm. combat duñ la fay un franc mali duñ la fay da nga li ngay def moo ëpp fuuf mm-hmm. dem na fi Belgique dem feneen feneen entraîné rek ay coono mm-hmm. lu def si combat bi mënu ko wax mm-hmm. mais da ñëw nga rattrapé compétir dimanche ba dimanche passé mu ñëw compétir si loolu champion moo pare nga daan ko avec la manière nag est-ce que yaakaaroon nga ne ci ci ci ci ci ci façon boobu nga koy daane quoi ak ni nga ko daane ay xale lañ yëkkatil micro bi loolu dara ay xale lañ mm-hmm. suñu boobu moo jël làmb yi mm-hmm. yàlla dogal ma jël ko mm-hmm. loolu dara cinq mille mooy jël bi nga ko daanu ba ñu bëri xaaruñu woon façon jël boobu noonu parce que su ma juumul ko daane noonu non loolu dëgg loolu dugg ci domaine jël beeg yooyu loolu dara làmb la moo ñu boole woon yàlla dogal na may na man dem ci kawam ba def ko jàmm ak sëkk di ñaanal waajuram bu góor mu tane jàmm salaam mm-hmm. ñaanal jàmm ay waajuram loolu laa koy ñaanal mm-hmm. parce que sport la seen moom boole mm-hmm. dafa ma jox cër teewul bu ñu bëree bu ñu abisifee day tàng sama moom mosul yomb te mosul lu ñaaw ñaata yoon ngeen bëre non yàlla moo jiital fu moo la jiital waaw kon dabagoo ko non mu dab moo ko lamba la sport la affaire yi xaajul jeexul mooy li ma wax sax nekk lamba ji jeexagul waaw tey ñëw ay sportif la ay compétiteur ay compétiteur lañ compétiteur mooy bëri tey bëri suba bëri ginnaaw suba ñun ay athlète lañ comprends donc tey bu ñu làmb boolee dañ rafet rek quoi xam ne sport la ku nekk si sa wërsëg ngay lekk. après bu jeexee jeex nañ ci leneen. Mm-hmm. ay ca mi ngi noonu euh, ren mën nañoo mën na mën nañoo mën nañoo xam ñaata drapeau nga jël. man est xam naa ko xam wala. xamoo li nga jël. wallaahi xamoo saison bi xamagoo xamagoo ñaata ñaata ñaata làmb nga ci jël. man de damay rey sax fàttali ma rey waaye sëriñ Baal si def loolu mën nga koy wax waaye doo lool loolu doo ko wax ñi ngay àndal. <laughs> loolu wóor yàlla wala doo ko doo ko wax sëriñ yi lay ñaanal. non sérieusement xamul mu jël non di sant ni ma ñaanal yëpp nag. sant bi ci fin bi la. waaw loolu moom <laughs> fa nga cabaxal defa fa nga cabaxal nang nang waaw xam nga. Uh-huh. di nuyu waa Gambie bu baax. waaw Gambie waaw. kon na ngay dugg ba Gambie suñu bopp Riyad Aziz Cheikh Soumboulou. ok waa Kolda waa dégg a tamit ngay tudd waa Guinée a waa Guinée Bissau maa ngi nuyu bu baax di leen sant mbapat jar na jar na dem bu Guinée Guinée Bissau non pas mbapat c'est ñun lii dañu nekk pour mm-hmm. compétir parce que ñun duñu ay mburu mbapat nii tey ñun dañoo am fu ñu objectif fu ñu bëgg yegg ci làmb mooy être le meilleur des meilleurs mm-hmm. nekk pour defar suñu carrière mm-hmm. Moustapha Gueye dafa mbapat moo nekk champion Ama Sène dafa mbapat moom nekk champion Yékini te ñun suñu ay kilifa lañ suñu ay grand lañ suñu boppatul woon fi ñu toll duñ fi toll. làmb day critique seen expérience ak mboxat bu moo tax génn si ñu teg suñu tànk. maam mboxat liggéey defar sa carrière pour suba ak gannaaw suba nga mën nekk à kon mën nañ jàpp ne daal euh, euh, Serigne Ndiaye lim jël ci saison bi xamul nu mu toll instant bi non non mais sant na yàlla bu baax nag. <laughs> sant sant sama nga jël jël nga ay nag jël oto jël drapeau la nga fa jël. <laughs> yaa jël open bi jël par équipe. individuel jël individuel. waaw loolu moom sant yàlla bu baax daal. <laughs> sant sama entraîneur yi ma entraîné bu baax. yi ma entraîné maa ngi sant bu baax ku mel ni Kante Bodian. Mm-hmm. suñu bopp Amady Diop. Mm-hmm. xam père Maxi Bodi. Mm-hmm. maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm. parce que day métti trop mais dañu bëgg théâtre di ma entraîner théâtre euh, bu ñu jógee ci mbappat bi ñu dugg ci arène parce que Serigne Ndiaye ku ne xam na mm. mbër la ma nga xamante ne dafa am cër ci arène bi da mm. nga amee cër ci mbappat bi noonu nga amee cër tamit ci arène bi mm. promoteur yi fu mu ci yow boobu léegi déggaat ko Serigne Ndiaye ci combat li wax mais ñàkk adversaire le 13 février laa mujjee bëre sama dig nag Cobra doy mu demee est-ce que du yow mais kuy mais tamit dafa am lu yenn mën a ak lu yenn mën a yenn mën a mooy ku ne Serigne Dia da xam ne war a bëril. Mhm. du ma fi di tudd kenn nag. ba lim kenn. promoteur yi tuddun la kenn. non dégg nga ma ne loolu tam Papa Tafa Gueye moo koy gérer moom ngay woo ndax Serigne ma la lebalee mooy sama avance mu ngi traîner fu ne depuis le treize février ba léegi amul kenn ku sañ ci sama avance dama lii amul te c'est pas normal ay mhm. moo ñu boole mosoo gis ñu dóor fu mbër moom problème mu daal fu mbër mu koy ñax ba gi. Mhm. xam nga nañu mën teraanga bëri suñu biir. Hmm. ba ki dama jaay sox ak franc. Hmm. war na gaa yi yoon bi. waaw ñaata mbër lañu fay ay cent millions ñu ñëw stade bi duñ fi def dara lu neex. Hmm. mais macha allah ñu ñëw feesal stade bi. bi daf ko gisee fermé daanaka. waaw waaw bëri seen biir loolu su nekk ñu nekk ci kaw huit ans sept ans ñu bëri seen biir benn lu boobu rek ñu tas ko may xale yu sens làmb gi sens xar kanam. xam nga xam ne làmb sport temps bu ndaw la bu dee la suturaale ba li nga bëgg si nga am ko mooy am nga si teranga mm-hmm. yaa ngi dox ñu ña ngi lay xàmmee da ngay gees xam say rakk ñu doomu daangu Jordan ñu gis nga sëpp sampaloon leen dënd mm-hmm. combat boobu noonu nga ñëw mm-hmm. avant arbitre di soufflé jël ndënd mi samp ci seen kanam mel ni ñaar ñooñu sa xale ngi ci ñoom. waaw non parce que neex ay combats yi logique laay ndënd. man nekkul ut yoon di gauche à droite. bëgg bëggoo fu yomb quoi. bu fekkee lu yomb kese la damay diri sama voyage léegi dem États-Unis toog fa nekk sama business nekk sama jamono salaam. Mhm. xam nga mhm. mais lamb la ñu yàlla nattoo dañoo bëgg lamb suñu xol am ay kilifa yu jàppale. Mhm. am ay coach yu ñuy donc yoon tam ñu ngi bëri suñu biir xam ne lii foom xale la foom góor la. xam nga man utuma yoon lu logique rek laay wax. sa dëgganteeg doomu dàngu wala Jordan ku ci ñëw baax na. wa déggoo ma xanaa loolu loolu loolu ñoom la buñ bëggee ma wàññi sama xaalis lu bari. yokkal leen. nga wàññi sa sa sa sa sa sa sa cachet dolli leen. yàgg naa ko def. <laughs> Serigne Ndiaye loolu moom doo ko def. barki Mouhamad wàññi sa cachet dolli sa adversaire. yàgg naa ko def dooy caaxaan. sama trois communes mu jëm lu laa def sans problème. wàññi sa cachet yo dolli sa adversaire. lamb ji moo toll foofu léegi. lamb ñu ngi jàppante suñu biir. ndax bëgg bëri kese quoi. waaw ndax bëgg bëri ak lan ak bëgg am position. Hmm. mais tamit nag après doo xam lu muy nduru doo xam lu muy nduru. gars yi gars yi da nga jàpp ne gars yi dañ lay teggi. non mais teggi pour quelle raison mais bu kenn ñu may tegi nee ma lii la. waaw ah, moo ma jaaxal ndax. boo waxee ñu ne dix combats nga am bu defoo fi dara. xëy na c'est quoi dix moom palmarès la. Oh, waaw. Mhm. benn défaite. Mhm. dix combats neuf benn défaite. waaw macha allah. waaw léegi la tax ñu war a mun moytu te war a bëri. wala jàkkaarloo bëri mu neex. nañ bàyyi moytandiku bi ak wéeru wéeru bi amul sens ay xale lañ laa ma xaaral kenn ati xaru mhm. laa mooy suñu gagne-pain xam nga nañ taxaw. li xew suba kenn xamu ko si moom kese moo ko xam. Mm-hmm. mais da nga am njot gu rafet xëy entraîné foo yaakaar ne kii mun na dara nga am teg ko sa loxo mu ñaanal la. Mm-hmm. mais li xew mm-hmm. xam nga nañu bëri suñu biir mu neex daal. kon daal xam mi ngi noonu nañu bëri suñu biir mu neex loolu la Serigne Ndiaye wax euh, sa diggante ak soq. non soq yërëm naa ko de. <laughs> Serigne Ndiaye nee na am na yërmande waaye <laughs> <laughs> kon am da ngay am yërmande ah mais c'est normal soq ñu def stade bi keroog ñoom ñaar mu nga bëgg bu duggaat si man encore. sëñ Bala mu la de wala balaa wala sànni la de soq champion la koy toon rek. soq champion la mbër la jërëjëf waa Pikine yëpp jërëjëf ziar bu baax. Hmm. Hmm. man amoo problème. mais mais am na yeneen champion yu fa nekk ay Tyson 2 nga fa. dégg man amoo problème adversaire ma dubalim kenn de léegi léegi lii yàlla xam na loolu ku pare jël sama avance billaay walaay jëlal. ñu neexoo ko mu neex. te bu paree mën ngaa wàññi sa cachet dooleel ko. loolu dégg nga man am problème sa amu problème boobu mën naa dugg si géew bu bëri si compétiteur xam nga dinaa dugg si géew bi bëri. yow bëri rek nga bëgg quoi. di nuyu suma kilifa ma jàppale yëpp. Mm. ku si mel sama maire dëkk Assou Ndiaye. Mm. maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal jàmm. Mm. sama bab Yves Diaw xam nga di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Ba maintenant bu baax. di ko ñaanal jàmm. xam nga sama bab Seydou Gueye. sama bab Seydou Samb. di leen ñaanal jàmm bu baax a baax. Euh, Père Moustapha Gueye. ak ki nga xamante ne bii moom mooy père Amadou Kati lu ñu dollu ci yow. non Fetala ak moom wax dëgg yàlla moom man li may ñaan saa su ne rek mooy mu yàgg fii. yàlla may ko wér ba mu fekkee lépp. gis lépp bi ngeen di finaanul lekkul naanul toogul taxawul. non la nga gis sax mais li ci xew yëpp tey yàlla da naa leen regroupement Diourbel mais dama ko fekk. mu mel ni mu mel ni gaynde gaynde ga nga xamante ne bii euh, gaynde gaynde gunu gaañ. non déggoo ma de père nalawul fu ne la dugg pour ñu am ndam lu gars yi mënul xam. Mhm. mais man dara ump ma. Mhm. mais li li li mu bëggoon ak li mu doon sàkku yàlla defal ndam. Mhm. su mbaa amoon kër Diop. li mu doole bëri trop. li mu yokk affaire bëri trop mag mu baax a ngi noonu. waaw di ko ñaanal jàmm. wallaahi gudd fan di nuyu soxnaam bu baax waa këram bu baax. di ko ñaanal jàmm bu baax ba daal. man amul lu ñaan leen jàmm yàlla defal ñu cat ñëpp. waaw lu si kam daa raw li bët. ay ah. ca mbër mu ngi noonu mu mel ni ah, ñu ngi ci njobboxtalu waxtaan wi ñu jëm tabaski xar mi jàpp na ne ak xartum. Oh. xar bi bi. wóoloo fi borom kër boo gis fi toll mu ngi xara nekk ci bopp bi ak xartum. <laughs> ah waaw mooy. maanaam bu tabaski bi desee rek. gars bàyyi millions yi teg ay ay xar. Eh, ay cinquante xam nga yooyu xam nga yooyu day. waaw yow day ay bu ay pàcc yooyu. waaw xam nga gars yi dalal benn tournant rek ay dix mbaam ay quinze. Eh, waaw waaw waaw day neexal affaire million million million million rek. million tamit mooy indi xar de. <laughs> million mooy indi xar baal si yi def xar mi jàpp na xartum bi jàpp na soxla si am na xartum xar maa nga kër ga. waaw mais sant yàlla. Mm. sant yàlla bu baax. yàlla yàlla sant bu dee suuf ci mbir ci dara mm-hmm. nga sant gërëm ko mm-hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. wax dëgg yàlla xam rek soutien dafa métti quoi xam nga te ni gars yi yaakaar ci yow noonu su moom dee suturaal da ngay lu sant ko gërëm ko maa ngi sant bu baax a baax a baax ñaanal suma yaay mu yàgg fi lool te ànd ak wér sant suma papa nag wax dëgg bu baax itam suma rax papa ñu koy wax Bada Diop di ko ñaanal mu yàgg fi lool parce que gis naa taxaw bi ak conseil ak lépp parce que yombul man yàlla dama suturaal ma suturaale maanaam mooy dangay bokk ci famille boo xamante ne tey mhm. duñu xool li ngay def li xool mooy say faay ok kooku day xool sama faay woo ma kar woo doxali woo doxali woo doxali nii orienté la tegaat la ci code exactement peut tafagee noonu peut kat noonu mhm. xam nga sama gars yi daal yal na yàlla defal jàmm daal desam dina réussir bu baax mhm, parce que seen liggéey métti na trop macha allah xam nga macha allah sama chauffeur bi bu ñu demee Diourbel nee na capotam bi sa supporté sa ñëli doon ñëla doon xale yi la doon supporté ñoo ko yàq oh. sama chauffeur mi ngi nii. Mamour ba oto la rek. Ah? <laughs> ma laa wax benn oto quoi. ay baax. ñaar waajur. bu baax a mm-hmm. baax daal. Mm-hmm. di nuyu sama mm-hmm. dafa sama fondement bu mag. di ko ñaanal jàmm. Kanda Bodian amoo fayam yu méttee métti. su ma papa Amady mm-hmm. nga waa Yaraax waa Ndar. xam nga li ñuy wakaab nga xam ne nii fii laay yendu. Mm-hmm. dafa defee lépp. Mm-hmm. mooy su ma gàlle. ko su ma nee Sobay Galas ak soxnaam xam nga di nuyu ñinaan di nuyu waa gàlle bi yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam parce que gis naa taxaw gis naa lépp soo naaw leen bëri nañu si boppam nag. ak ci arène bi. Mm-hmm. maa ngi nuyu baax di leen ziar. Mm-hmm. xam di leen masaw. Mm-hmm. su fekkee dama fi dama si def kenn dara lu lu soxol. bu baax xam ne compétition rek. xaajul jeexul. bu jeexee jeex yàlla bu jeexee jeex na moo ñu boole. yéen ma kenn lu bon aw ma kenn xool kenn lu bon. mais liggéey noonu jaajëfal nañ leen yéen ñi doon topp ci Leewtoo TV. di leen ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam wante wax na ko sànq moom macha allah xar maa nga ca kër ga xartu mbaa nga ca kër ga wante sama jigéen Binette Fall nekk fële ci États-Unis maa ngi lay woo xar mi jàpp ndeegul sama jigéen Malo Sène fële ca Côte d'Ivoire xar mi jàpp ndeegul yéen ma gën a xam yàlla na yàlla dolli jàmm jaajëfal ma leen fii ci Leewtoo TV beneen yoon ak beneen champion seen te yéen ñi ñuy seetaan mooy suñu contentement jaageen jëf ba beneen yoon.